alhamdulillah rabbil alamin ah, dañu jëm ñu tan yu ci suñu biir jooni junni nawle donc lolu sutura yalla la yalla moko tuddon te ma nga ñaan yalla aussi nañu taxawé fi aussi yalla na yalla taxaw équipe nationale bu Sénégal bi tax ñuy dem fofu ba seen mebeut yépp moy am coupe bi mo accès ñaan nako yalla aussi ma nga ñaan euh parieur yi ñi jouer xbet ak euh, mas commune et cetera ñu gën a góorgóorlu xam ne lii wax dëgg yàlla xéewal la bu mën a ñëw ci ku ne donc nag bu ñu gën a góorgóorlu aussi yàlla mën na leen defal la ñu foogul mën nañu àgg fa ñu foogul euh, yàlla mi moom mi àttan daal maa ngi koy maa ngi jël waa LONASE waa fédération ak ñëpp teg ko ci loxoom yàlla na leen yàlla may kàttanu continuer ci la ñuy def yàlla aussi taxawuñu ñun ñëpp suturaal ñu ba aussi lépp lu ñu mébét aussi ñu àgg ca